yónnee ko benn xaritam bu tudd Dior Fall léegi vidéo bi nag entre Dior Fall moo ko amoon kii may wax ak yow ak Astou ñoom rek amoon vidéo bi keneen amu ko woon. premier jour ba ma ko yëgee dama leen da woo ci club house bi ma daal di régler situation bi woo duudu duudu yëg ci kaw wax Sénégal yi di dégg léegi dafa am nag comme que nag man dem naa ba tey vidéo bi ñu koy pasar pasaree ba quelque ci Sénégal yi gis ko yoon la ma génn leeral. nii la affaire bi demee ndaw si moom moo ko capturé dem yónnee ko benn xaritam bu tudd joor joor ak duudu nag xam nga lan moo leen métti yéen ñaar maanaam duudu moom nee na ci biir waxam lépp joor la parce que joor dafa noboon duudu te duudu nobu ko mais contraire bi la duudu moom moo doon doxaan joor duudu moom moo doon doxaan joor joor Fall la doon doxaan joor nanguwul après muy génn ak Mamouska nee na nag ñoom ñaar dañ doon génn beneen situation dafa am. en même temps ci duudu série Adja am na benn gel bu dëkk Bologna bu tudd Valérie duudu da ko woo en même temps ne ko soxna si nanga def mu ne ko maa ngi si jàmm mu ne ko damaa bëgg ah direct direct Instagram lañ doon def ban dafee direct ba pare duudu daal koy jël ci suuf ñu dem waxtaan ñoom ñaar def appel vidéo duudu naan xale bu jigéen bi daan ne ko man nekkul ne dangay doon artiste rek wala nga doon waykat wala nga doon keneen rek dama war a jóg wan la samay taat xale bu jigéen bi nee na ni mu génnee di doxantu dem ci côté waaj bi ak ba mu wëññeekoo dafa fekk net net duudu bu séeri Adja mu jàpp ci koy yi di def nii jàpp ci koy yi di def nii nee na mënoon na koo capturé sax te defu ko nee na histoire boobu lu rëy la jur ba instant bi duudu waroon na cee am problème mu bàyyi mu sedd tey la ma contacté Valéria mi ngi dëkk fële Khadija la tudd Khadija moo ngi dëkk Bologna Duudu moo defaat loolu nee na ba mu génnee ak ni mu ñëwaatee ak ni muy lambee koy yi naan ko benn la kon Duudu da ngaa feebar Duudu bu Seydi Adja war ngaa xoolaat sa bopp bu dee jigéen ñëpp boo leen woowee da ngay génnee sa koy sans ñu simbi silib war ngaa xoolaat sa bopp maanaam émoride da daanu war nga xoolaat sa bopp bu baax a baax a baax léegi nag gars xam nga nan la di def maa ngeeg vidéo Mamousse kii maa ngeeg vidéo Doudou ñaari video yëpp am na nu muy demee tey dañ koy laal ci live bi mais balan koo laal ci live bi def leen ndax bala ñoo laal ci live bi gars yi balan koo teg ci live bi dañu déglu conversation mamus conversation Doudou conversation gel bi nekk Bologna parce que Adama bos Day néegri dafa bëgg lépp lu muy def rek mu leer Adama Boss Dey Negri dafa bëgg lépp lu muy wax rek mu leer man sama lépp ci preuve laa ko teg nan dem ñu déglu audio yi bu baax après Doudou dina dugg avant may génne vidéo yi ndax temps laay maye muy ko jigéen ki muy ko góor ki ku nekk 10 minutes laa la may temps pour nga dugg ci live bi leeral même audio dinaa leen tegal ngeen déglu de dinaa leen tegal ngeen déglu may dafa am heure ak temps bu may maye loolu mooy wax ji kenn xuloo na jàmm bëri nan dem ci audio yi nan déglu gel bi ba pare do après bu dégloo gel bi déglu duudu ñu dem xaaral xaaral xaaral ojo yi liirul sax mi naa gaajo xoolal sa whatsapp yow laaram yi damay direct bu ma woo damay direct bu leen ma woo baay wane wu leen lëf seen koy génnul bu leen ma woo seen yoon nekku ci lan moo seen yoon da ngeen a wane lëf seen koy la seen data bu leen ma woo waay bu ma tàngee damay naan nday rët bu li de bu leen ma woo ku ma woo ma katt nday vidéo yi bu gel beeg bu duud yëpp laa ci yemale ku ma woo rek ma dëgg nday vidéo yi bu ma kenn woo ku ma ci woo dinaa katt nday vidéo yi lu leer laa leen di wax bu ma kenn woo waaw gaa yi may leen ma tuuti audio yi dama dama xool après mu effacé wu mais dafa ku ma ko yónnee woon moom laa bëgg mu envoyé ma ko gaaw su ko defee ma tegal leen ñaari conversation yi bala ñoo continuer na ñëw ma woowee moom affaire ñàkk fayda yi man dox ma ci bu ma wax bu ma waxati loolu fépp xale yi na yem fii bi ma ne ko waa bi ma ne ko d' accord ma xool mu bët lay joué yow daal mu woo ma mu woo ma commencé ma woon affaire yi yaa ngi bu ma woo commencé woon affaire yi moom moom gisuma de moom ba léegi gisuma moom moom léegi gisuma mu commencé dama woon affaire yi muy des di dékk di masturbé di masturbé wu di masturbé wu yaa ngi comprendre leeratul de leeroo de leerul de mooy wax après dinaa teg duudu. laa bëgg nga ay awa jaani moom sama yoon ñëw ci. non dama ne ba xam xam nga leen laa la xam xam nga leen. waaw dafa mel ne de. loolu laa la wax xam nga lan la lan la dégg problème boobu dañoo kii woon mu awa jaan saa naa ko ko day dégguma li ngay wax yow boo nekk. waaw. waaw ma dina leer après dina leer ni la doon def dina leer déglu leen ko bu baax rek gel bi après ma tegal leen duudu déglu leen ko bu baax rek. aa nga instant yaa ngi fi pour man danaa coupé sax. waaw nga ne. léegi euh, léegi li euh, nga wax de waaw ñu ne que Doudou moom dafay woote di wane bagage ni yooyu noonu. dañ ko gën. waaw ma ne leen ah bon ñu ne ma ni ma ne leen non joor wala awa. awa awa la surtout alors mu dafa doxaan awa. Hmm. doxaan joor doxaan ma. dégg nga ñu Doudou doxaan ñëpp. di ko posé ay questions. yoo xamante ni c'est malsain si joor nee naa ba xam joor mos na def lii daa aw te asufal man ko joor la mu dem ko laaj xam joor mos na def loolu genre yooyu noonu lii nga ñoom ñu ne que euh, que am que waa ku góor ci dafee ni woo di wane seen ci affaire am yi te premier jour la lay di la def say affaire affaire yooyu noonu yaa comprendre léegi après ñu ne ma mën na leen non loolu vrai wul kooku xanaa lu def loolu waaw kon baax na kooku de bu dee noonu la parce que man maa ngi waxante ak moom waaye moom war na ma benn ñàkk fayda boo xamante ni da nga affaire ñàkk fayda yooyu noonu ñu ne ba moment bii bi affaire yooyu noonu kii day def loolu noonu mën na leen ah waaw baax na kon loolu dinaa ci xam dara te ñu ne ne su fekkee mën nga ci xam dara boo koy woo wala booy waxante ak moom muy génnee affaire am yi ma ne leen non loolu xeewul affaire yooyu noonu ñii ma ne ko fekk maa ngi sol boobu roobu abbaaya weeru koor jëlal ci biir weeru koor bi de léegi ma ne ko man de sama sama loxo day xasan wala ma def nii nii laa def xoolal téléphone bi xoolal vidéo bi. gisuma la noo def. nii da ma def nii sama loxo ma ne damay woqat. waaw ma ne maa ngi woqat su ma ma nee damay woqatoo xam nga téléphone bi fii ci fii nii da ngay gis sama xooj yi. Mm-hmm. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. léegi damay wokk sama loxo bi ma téye foofu téléphone sama xooj yi nii rek mm-hmm. ma téye sama boppam sama kii bi di woo xam nga lépp pour xool ba xam moom dina def dina commencé wax sur beewu mm-hmm. yaa ngi comprendre mais ma ne damay wokk sama lo sama pooj yi ma sama sama loxo bi ma ne may wokk sama loxo bi wax wala sama loxo pendant trente secondes rek après si laa tourné téléphone bi mu naan waaw man sax sama yaram bi yaa koy commencé xasanaay de genre man ne ko ah sa yaram bi yaa ngi koy commencé xasanaay mu ne waaw sama yaram bi yaa ngi koy commencé xasanaay après si la commencé jël téléphone bi tourné ko commencé ci affaire yi parce que alxuraan su fekkee man. mais yow wëroo ko wëroo ko wala kaa moo ndax Adamo léegi moom su fekkee man dindi naa sama silib Adamo man ba jël bi duur tegal ko sama kanam parce que yàlla ma safara jël addiya. Ah. parce que alxuraanu kari ak weeru koor yu fekkee mu ne na wala naa sama baat man yàlla ma safara jël addiya parce que tey naa xam ne ak weeru koor. ok léegi yow capture yi koo ko yóbbee kon. Duudu moom da nga koo capture wala da nga koo def vidéo. déglu ma. léegi wane na wala wanewul après dina leer ci live bi bala ñëw coupé léegi léegi nii fii moom lépp fi lay leere live bu Adamo amul ma dem ak te ñëw nan ñëw ci duudu nan déglu conversation Doudou. duma la ko def laa la wax. barki sëriñ. Doudou nan ñëw ci Doudou. duma la ko def laa la wax. barki Serigne Babacar duma wane sa vidéo dama la dama la woo expliqué ni mu demee pour kenn du la njëkkantu. Ah, Awa Diagne ba nga ko wanee dafa dem wax ko ñoom joor ñoom joor tantal la pièce nga dal ci pièce bi noonu la affaire bi demee pour ma wax la ko waaw. ak mu suuf su man day ak mu suuf su man day bu dee man maman wanu ma yàlla bu ma tekkeeti si cinéma. nee na nag wanu la nee na ma xoolal duudu rek moo doon way rek ma capturé ko mais waru la woon a capturé wax naa ko di ko yónnee ay joor wax naa ko ko nee naa ko def nga erreur barke Serigne Babacar. billahi wax naa ko. ak sama bàmmeelu ak sama bàmmeelu maam bi nga xam ne moom. wax naa ko de loo xam ne mën naa ko tudd mu jooyloo ma te àdduna. ah bu dee ma man. na xoolal barke. ana ma Adamo xam nga maanaam kooku maanaam moom moo ma doon woo sax ay yenn saa yi te man du ma ko topp ci loolu. mama mama mama barki Serigne Babacar si fii la nekk woo ma deux minutes di wax. man dama la bëgg wax comme yow comme danga ne dañuy waxtaan comme ay xarit. sama xarit nga yow sama xarit man du ma la yóbbu fenn ci àdduna bi sama waay nga ma woola man vidéo bi intéressé wu ma man ak yow ñoo démb la du tey ba ngay dugg sama live du tey. waaw waxuma la ko pour tey jii wax bi di demaat feneen quoi mais tey jii dama la jàppee xarit quoi sama frère nga. barke Serigne Babacar si sama xarit moo tax ma woola maa la bind ne la wooma waaw. déglu ma dama la ko wax pour tey jii ñu ñu ñu ñu waxtaan quoi instant dañuy waxtaan man waxuma loo xam ne tey jii maman bu ñu taxawoon ko am mille nit bu génnee sama vidéo man du ma mës a génnee lu ma am ci moom. tu vois parce que tey jii tey jii am na loo xam ne doo ci topp nit tey ji moom bu koy def peut être bu mu koy def moom xamul woon ne lii yëpp mën na yegg si fii xam nga te man damay ni moom xale la rek parce que moom sama gel la woon nekkul parce que dañ doon woowante nii sama gel la woon quoi. Ah, nee na daal Awa Diagne moo ñëw fen leen ko léegi Awa Diagne ba mu ko waxee joor ak asufal daan ne euh, duudu day wane wane kat la léegi tànnal ko pièce après léegi mu lay woo nee na nee na nag dafa jël loxoom wokk ko ci côté pooj bi barki alxuraani karim di tara ma ñàkk sama ndey billaay man duma fen loolu la di wax waaw sama bàmmeelu maam gëm naa la gëm naa la ñoom ñëpp loo wax ci ñoom ay cagalan loo wax dëgg la barki Serigne Babacar Si mama cagala de yi ma ne ko man dama sonn damay tëddi cagala de yow lii balaa nga may woo di ma ko naa ko mais tey jii man dama la bëgg wax man dama doon dugg si club house bi. non non yow tudd ñu la fa de moom rek lañ fa doon tudd. Famara. yow sa tur génnul de yow sa tur après la ba ma woowee moo ma doon expliqué après la ba ma ne ko vidéo bi gis naa ko après la loolu yow du woon yow de. man vidéo bi ñoom ñu ngi noonu di ko yónnante si club house bi nga. non non club house bi kenn yëru ko fa dañuy du rek. dama la wax. parce que yi fa yi ma fa yor man si doomu xajlan parce que Seydouna Mohamed. doomu xajlan mu nekk fii di naan yéen ak may tooñ kenn capturé wu may dafa tàmm ay capturé yayaa noonu la ko def yayaa da koo capturé yow mu def la noonu ñaari nit ngeen. te yayaa xam naa ne moom doo génnee bosam boo ay waay. ko def mais dama ne la yow duudu yow yaa war a def atta man dal duudu man jaaxal nga affaire yooyu noonu yow man nga doxaan joor mi bañ may jooy Adamo ñoo xam te dëgg. Mm, moom kay mooy loolu ñooñu moom. ah coono la mais tey jii man bi ma demee ba xam ne groupe bi groupe bu xale lañ teg yemuñu dañ lay waxal dugal la ci ay détails laa ne non ma xaaral ma lemaat sama génn man soo gisee si club. non man xam nga lan la man xam ba ma ko waxee dama ne ko. duudu di jékki-jékki génnee ay koyam yow wonoo ko dara xanaa yow di koy woon noonu ay wokkatoo ki boo kon nga wéré di de barki Serigne Babacar. barki Serigne Babacar Mouhamed déggoo li ma man sama frère nga man tey jii déggoo li ma la wax tey jii tamit gis nga bu yàlla defoon ni ma jàppee la xarit jàppee woo ma xarit tamit nga nga décidé ne da ngay dugal benn ngeen. waaw man yow dof nga. coono ma nag non déglu ma rek dama lay wax dama du ma du ma. yow nga yow. xam nga tey jii non de xam nga na tey jii man mama ma xam naa ya ah, moom bon amul intention boobu mais tey jii xale la quoi te dafa am ñu koy influencé coono ma parce que jigéen bu nekkee entre ñoom ku nekk day bëgg woon sa morom maal ëpp mais ñoom ci boppam man bëgguma leen sax ñu dégg seen tur ci yenn wax yi parce que ñoom xamuñu lii ba fu muy lii du yàq mën nga jàpp ni lii la fi waat ba teg barki alxuraanu karim Cheikh Tidiane Chérif Chérif wanewuma sama loxo yi laa jëloon doon ko wokku nii duudu di masturbé ma ma koy caméra yëgul na sax caméra naa ko tax moom gisuma sax bu baax ma yónnee ko joor di du rek barki alxuraanu karim ak ma suur su ma ndey laa ak man tournage laa nekk ak yàlla bu ma yàlla waaye paa bi may teg bu ci beneen paa topp yàlla naa dee laa la wax bu dee moom wonuma dara mais tey la sama mais keneen bu ma ko wax waay nga man maa la sañ a woo wax la ndax club house bi kenn tudd la fa maman rek laa doon tudd yow amu yow amu intention tudd la yow sama maman laa waxal directement ma yow ok maman nee na wane na wanewul wul tout cas man ñaam yaar ñëpp maa ngi seen vidéo montage la wala du montage maman wane la bu duudu original la bu Maam yi tamit original la mais xam nga jigéen na naan dañuy montage ak du ñu montage loolu lépp incha dina leer fii ci live bi léegi duudu bu ñu weesoo ci problème mu maman maanaam bu jàllee ci la mu maman mii ak Awa Diagne mi nga won say koy dafa am beneen cas boo xam ne Valérie la la tudd gel bi mi ngi dëkk Bologna déglu leen li gel bi expliqué nan dem foofu après ma taal WhatsApp bi may leen 10 minutes ñu ñëw avant vidéo yi waaw incha allah léegi déglu leen Valérie nee na Doudou da ko def la même soos nan ko déglu nan déglu Valérie déglu leen bu baax. mën a xam. yow tamit nan nan la demee yow ak Doudou ba Doudou tamit euh, jékki-jékki génnee koy te wane woo dara. léegi bi ñuy waxtaan ci live bi. Doudou moom moo doon def live. Doudou moo doon def live. waaw. comprendre mi ngi mel ni yow nga nekk di def live man ma nekk ci commentaire yi di ruube ba yow nga gis sama tur nga ne ma noo yow live bi. bu jeexee faaw ñu waxtaan est-ce que yaa ngi léegi live bi jeex mu woo ma fekk dañoo am suñu benn xarit boo xam ne fii la nekk Italie fii la dëkk Italie comprendre nga. Hmm. si lañ def appel ñu doon woo moom ak sama xarit bi nekkoon doon fecc ak affaire yu mel noonu ma doon reetaan léegi sama xarit bi ne moom maa ngi tëddi parce que suba dama war a voyager donc appel bi ñu des man ak Duudu kese est-ce que léegi duudu ne ma waa doo jóg noo wan ma noo mel ma ne ko noonu est-ce que yaa ngi comprendre mm-hmm. ma ne ko maa ngi nii tëdd maa ngi nii bi mu ne ma waa léegi tourneel caméra bi ma xool la fekk boobu maa ngi tëdd sàngoo sama mbaaj comprendre mm-hmm. mu ne ma xam nga bu baax ni ko waxuma la nga wan ma ay mbaaj su fekkee li may wax du dëgg yàlla bu ma yeewu suba comprendre nga mm-hmm. mu ne ma dara dara nekku si léegi xam naa comme Sénégal boo xam boo demee ba am yenn importance yi nit yi jigéen yi boo leen laajee rek dem lay wan comprendre ma ne ma ne ko man du ma genre jigéen boobu bu fekkee da ngay xaar pour man ma wan la dara xamal ni ko du gis dara est-ce que yaa comprendre. waaw fekk boobu solu ma woon sax yére boo xam ne di nga mën a ne kii li mu sol nii sax di nga gis lii ba tax affaire bi mun la excité wala affaire yu mel noonu wallaahi damaa muuru woon. Mm-hmm. billaahi comprendre léegi. mu muy wax ma ne ko ci instant sama tànk dafa weex bàyyi noonu mu ne ma sama tànk na gën a weex après si la simmitu ba yom moom duudu simmitu ba yom billaahi mu simmitu ba yom comprendre nga après si nekk di waxtaan mu ne ma vase a ak affaire yu mel noonu moo tax ngay rus dugg na fii génn na fee ma ne ko noonu man duma genre boobu xaw ma nag yow lan lañ la tàmmal est-ce que yaa ngi comprendre mm-hmm. ni may waxee moom muy reetaan tourné caméra bi comme vidéo bi nu mu demee nii tourné caméra bi fekk mu ngi foo ak affaire am bi wallaahi. léegi boo ko gisee capturé wo ko waaye. billaahi capturé wu ma ko sax maa ngi maa ngi sax ak audio bi may bi may woo sama mag te li ma lay wax nii nekkul dama ko inventé parce que audio yi ma yónnee sama mag date bi sax xëy na mu ngi si.